bàyyi leen ko mu jàll bàyyi leen ko mu jàll Ousmane gars yi kontaan nañu Ousmane gars yi kontaan nañu Ousmane gars yi kontaan nañu. non garaawul garaawul garaawul non non non garaawul garaawul na ñëpp puus ndeysaan Ousmane Tounkara gis ngeen Sénégalais yi jënd nañu pour wane Ousmane ak ñi ñu ngi koy delluwaat en prison parce que la la l' état du Sénégal moo def pression bu mag a mag a mag pour ñu indi su Ousmane mais comme fii dëkk droit la comme fii dëkk droit la nee nañ dañuy may beneen deuxième chance. ñu wane ni Ousmane du terroriste du ñu wane ni ñu wane ni Ousmane bu nekk demee Sénégal dafa nekk en danger sénégalais yaa ngi nii di jooy jigéen ñee ngi jooy xale yaa ngi jooy mag ñee ngi jooy gis ngeen li nga xam ne moo xew gis ngeen police ndeysaan Ousmane Ousmane Tounkara gis ngeen ndeysaan oto baa ngi nii taxaw ndeysaan leen paa yi góor jigéen mag ndaw ñëpp a ngi jooy ñëpp jaaxle nañ ndeysaan xool leen lii l'état du Sénégal xam ngeen ni seen yaram war naa daw de yéen boo leen demee bay accuser seen i doomu réew naan terroriste la ba tey ñu ñëw ci dëkk droit bi ah xam ngeen ni seen yaram war naa daw joxoo leen ñu ñu lekk joxoo leen ñu ñu naan tey ñu ñëw beneen réew pour am am fa teraange ngeen ñuy accuser ndax d' ñu ak yéen donc y' a un problème y' a un problème alors que le problème est très sérieux gis ngeen état du Sénégal moo waral li yëpp Ousmane Ousmane Tounkara dañ ko accusé de terroriste gis ngeen gis ngeen. parce que baaxul ñu ay nit ñu bon lañu parce que li baaxul. ndeysaan li baaxul meen kii dafa am njaboot. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ay kilo ndeysaan gis ngeen gis ngeen xam nga ni terroriste du am lii terroriste.